waaw taxawaay bi wute na lool wax dëgg yàlla ku xam taxawaay bi ñaari kilifa yi xam ne wute na waaye comme dañoo nekk ci procédure waxtaan li gën mooy nañu daje pour toog waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaanee ñoom bu solution amee baax na bu solution amut a ah, ñun suñu position yaakaar naa ci la ñuy kon ne rek. non xam nga ñoom li ñuy def dañ ko programmé ba tey dañ ko programmé woon bu yàgg ñoom jàpp naa li ñuy def programmé woon nañ ko ndax dèjà tey bi ñu xëyee jox nañ ay nit ay promoteur woon kon a def kenn mënu leen ko te def waaye nag ñun suñ position bi ñu amit kenn mënuñoo teg kenn mënuñoo jëlee suñuy position yéen est-ce que dugaloon ngeen wax nañ leen suñu ay programme ndax ñun combat daaw lañ yor yoruñu combat ren non duñ am nañ yaakaar duñ ne ci yaakaar comme dañoo war a tase bu ñu war a tase incha allah comme niñ ko yëgee comme ni ngeen ko yëgee tey bi incha allahu rabbi buñ fa jógee ñun duñ tirisee liñ fa jëlee rek loolu la ñuy xam nga ki kum neex am nga droit joxe sa caution ndax libre nga mais nag am na ñoo xam ne am nañ droit ñoom leen na nañ ci kuréel duñ joxe seen i caution te duñ ci de te duñ ci ànd ñooñu kuréel la mooy bi Pape Dou Fall jiite ñun ñu nekk ci li ñu décidé mooy kenn du kenn du réguler sa combat kenn du joxe un million te waxtaanuñu ba pare te it mënuñoo joxe caution loolu moom ñun suñu ay principe la te yaakaar naa pare guñ pour jóge ji. ñaari avancé ñetti avancé jamono ji lëmbee na làmb ji noo ko gisee yow en tant que promoteur. bu fekkee mbëri nangu nañ ko promoteurs yi ko seq nangu nañ ko man jàpp naa ne problème amu ci bu fekkee mbëri yi koy bëree nangu nañ promoteurs yi tëgg nangu ko yaakaar naa loolu gisuma ci en tout cas nañ ba bu ci coow am rek. jàpp nga ne dina jëmale làmb non man moom wax dëgg mbër mooy signé contrat contrat benn combat ngay bëri muy benn contrat mbër moo koy def yaakaar naa moom suñu contrat du àgg. mais boo téyee mbër bi tamit camp mbër bi est-ce que duñ ne Fallou dafa soxor wala. non du cadre wala camp mbër bi xam nga lépp loo gis waxtaan la xam nga tey mënoo organiser benn événement bi. ci biir benn événement ñëw dugaat ci biir mën naa citer événement bi nga xam ne moom def wala mu ñàkkal ko solo te yaakaar naa ñun waruñu ko defante sax suñu biir jàpp naa daal loo xam te nii la mën naa ñu koy def di ko bàyyi nii mais mën naa di coow ci kanam ba tribunal na ci xaj wala leen xaj am na promoteur yoo xam ba signé ñoom contrat dem si ñëwaat beneen contrat mën naa am yoo xamante ne nii maana day musli kon yaakaar naa képp koy defit na nga xool contrat nga xam ne moom nga signé ak lan moo ci tënk ba nga xam ne ni benn jafe-jafe bi la